kon ci seen invitation la ñëwee fii ci Ziguinchor ngir bokk ci doxu ñaxtu bi bi ma egsee nag fekk naa ñu jëli bataaxal bi nga xam ne mu ngi bàyyeekoo ci préfet bu Ziguinchor bi ñuy xamal ne doxu ñaxtu bi nga xam ne moom la ñu war a amal suba dañ koo tere ndax jafe-jafe kaaraange ndax itam ne ñoom njort nañu ne moom préfet bu Ziguinchor njort na ne ah suba mun na am ay jafe-jafe yu am solo mooy trouble à l'ordre public ci doxu ñaxtu bi lenn laa bëgg a xamal waa yeewi askan wi yëpp waa wàllu yëpp waa Ziguinchor yëpp waa Oussouye yëpp waa Bignona yëpp jógewu ma ndakaaru ñëw ba Ziguinchor ngir bañ a dox suba bu trois heures jotee diggante terrain jatir jëm rond point Aline Sitoé Diatta maanaam suba ñun ñëpp bu ñu ba noppi julli ajuma nañu tassé terrain jatiir ngir marche pacifiquement xexuñu xulloowuñu fitna taxuña jóg dinañ marche pacifiquement du terrain de Jatir jëm rond-point Aline Sitoé Diatta euh, ñun nak amuñu lu wax préfet bu Ziguinchor ndaxte xam nañ ne du moom amuñu sax lu ñuy wax Antoine Diome ndaxte xam nañ ne du moom président Macky Sall la ñuy waxal président Macky Sall ñun ñi waa Bignona ñun ñii waa Oussouye ñun waa Ziguinchor nee nañ bu dee da ngaa jàpp ne suba manifestation du am président Macky Sall waxuloo dëgg suba marche dina am manifestation dina am fii ci Ziguinchor

ngir rek fexé ba Yewwi Askan Wi bu bokké ci élection itam Ousmane Sonko Déthié Fall Aïda Diong ak ñom sen duñu bokk ci élection yi lenn rek moy ñew suñu xel mais appareil d'état bobu yépp préfet yoyu yépp ñuy manipuler police ak gendarmerie yépp yi ñuy manipuler ngir lolu am mais ñooñu fuñu nekon, nekkoon bu ñuy sàcc suufu béykatu Sénégal suufu sàmmkatu Sénégal fii ci Bignona usuy ak feneen ci Sénégal fu ñu lan moo appareil d'état boobu mobilise mobiliser wuñ ko contre les spoliations foncières lan moo appareil d'état boobu mobilise mobiliser wuñ ko contre les démolitions de maisons des pauvres góorgóorlu lan moo appareil d'état boobu mobilise mobiliser wuñ pour la protection des richesses des sénégalais lu si mel ni ay zircon pétrole gaz ak ñoom seen lan moo tax appareil d'état boobu yëpp mobiliser wuñ ko ngir kaaraange askanu Sénégal kon lii mooy tekki mooy appareil deta bu Sénégal lan rek la fi nekkee mooy sàmm njëriñu Macky Sall ak waa këram sàmm njëriñu Macky Sall ak waa partem sàmm njëriñu Macky Sall avec ak ses maîtres impérialistes ñi muy jaamu ñi mu nekk seen ñi mu nekk seen surga muy France muy Union européenne muy États-Unis muy FMI ak Banque mondiale violence yooyu yëpp nag violence contre les Sénégalais ci seen suuf violence contre les Sénégalais fitnal Sénégalais yi ci seen suuf fitnal Sénégalais yi ci seen kër yi ñuy toj fitnal sénégalais yi ci sen école yi nga xamné dara amutu fa di fitnal kat yi fitnal sénégalais yi ci sen wergu yaram bo démé hôpital dé rek dé rek suñu l'hôpital yi dañ ko transformer def ko almer fitnal sénégalais yi ci sen geej suñu kat yi dem di obligé napp Guinée Bissau ñu leen di japp di leen di ray fofu wala Mauritanie wala Gambie fitna Bobu. mom mo continuer tay ba ci élection yi té comme ni ngeen ko xamé ku sàcc alalu askan ku sàcc khalisu askan élection bu jotee boo buggee waat faluwaat di nga sàcc élection donc président Macky Sall ci sàccum élection la nek. sàcc élection législative sàcc ba bokat une troisième fois de manière illégale de manière illégitime ci élection présidentielle loolu la wax ne duñ ko nangu tay duñ ko nangu ëllëg ndaxte président Macky Sall bu sàccee élection législative yi ça veut dire que assemblée nationale bu Sénégal du wax ci spoliation foncière du wax ci sàccum suuf si du wax ci toj Sénégalais yi du wax ci école ak hôpital bi nga xamné manam dafa dé président Macky Sall bu sàccee élection législative yi li muy tekki dina continuer jaay suñu géej jaay suñu zircon jaay suñu pétrole jaay suñu gaz jaay suñu phosphate jaay Sénégal libre, jaayale ñu ñun Sénégalais yi jaay ñu Cette yi bu ñu président Macky Sall quatre fi candidat une troisième fois de manière illégale et illégitime lolu lu muy tekki président Macky Sall dina wëyal la spoliation foncière du Sénégal dina wëyal yeneen juróomi at d'accord toj këru sénégalais yi dina wëyal yeneen juróomi at transformé hôpitalu Ziguinchor hôpitalu Louga hôpitalu Matam hôpitalu Ourossogui hôpitalu Dakar en mouroir 24 septembre 2020 ñu ne ñeenti bébé dee nañ fii ci hôpital Ziguinchor ñu ne déet Louga la même chose ñu ne déet linger, la même chose loolu la ñu wax ne dafay jeex loolu président Macky Sall yaakaaram tas mu jaxlé xam na ne il est minoritaire tay ci Sénégal mu ne foog mu ut pexe benn pexé rek la gis sàcc élection sàcc élection législative sàcc élection présidentielle tànn candidat yi nga xam ne moom lay bëral réunir ay conditions yo xam ne daf kay leer ne day gagner loolu nak lañu wax né du fi amé motax tax bi du xeexu parti politique rek du xeexu coalition parti politique rek

ci mois de mars mu am enquête mbir yi leer dañoo bëgg assemblée boo xam ne dafay safaanoog assemblée bu Pa Moustapha Niass di jiite nga xam ne lenn rek lañ fa nekkee waxtaanee suukaru koor séddoo suukaru koor waaye duñ fa waxtaanee mbiru askanu Sénégal kon mbir mi mbiru sàmmkat ak mbiru béykat la mbiru enseignant ak mbiru waakër kër la ba ci mbiru policier yi auxiliaire de police bu Dakar bu Ziguinchor bu Matam bu Tamba bu Kaolack ak ñoo francs par mois lañ leen di fay manifestation suba on va aussi manifester pour les auxiliaires de police qui sont maltraités sur le plan salarial te bu ñu manifestation bu ñu leen gagné. Et état bi na leen yéenay faj seen bopp donc coow du coowal parti politique rek du coowal coalition parti politique rek coowal tous les agents des forces de défense et de sécurité yi nga xam ne seeni njiit ñu ngi leen di tuuf ñuy lekk di di jox ay ordre di wax les hommes de troupe police gendarmerie armée ñu dal ci kaw askan mi nga xamné ñun ñoo yem ñun ñoy bokk fi ñuy fajo muy hôpital public ñun ñoy bokk fu ñuy muy école publique ñun ñoy bokk suñu naxar muy ñu dajale suñu xaalis dënd suñu terrain ñu ñew sacc ko ñun ñoo bokk suñuy naxar mooy ñu dem ba tabax kër ñu ñëw toj ko ne terrain bi borom barke moo ko moom moo tax suba ñaar rek moo am dañuy marche wala dañuy marche amul amul leneen suba ñun ñëpp joxe nañ rendez-vous trois heures terrain Diatir c'est marche u marche léegi nag léegi nag mars deux mille vingt et un reyoon nañu fukk ñeent ci ñun suba moo xam Ziguinchor la moo xam Ndakaaru la moo xam fu mu nekk ci senegal kuñ fi laal dinañ ko digaale ki yow ba mu saf-saf duñ fi seetaan duñ fi nangu li xewoon mois de mars amaat fi Macky Sall nee na li xewoon mois de mars du fi amaat ñu ne ko waaw ñun waa Oussouye ñun waa Bignona ñun waa Ziguinchor suñu baat ca kaw li xewoon mois de mars du fi amaat ndaxte mois de mars suñu kilifa diine yi suñu kilifa aada yi ñu ñaan nañu ñu teg lépp ci suuf nañu ba ci ñi dee état dina leen toppatoo état dina wax ñan moo leen rey waaye loolu duñ ko nangooti donc suba kuñ fi gaañ ñu dal sa kaw kuñ fi rey ñu dal sa kaw président Macky Sall nag foofu laay daanelee Si nous avons dit, Monsieur le Président, en 2024, il tac. À partir de 2024, nous allons commencé à Monsieur l'ancien Président. Si vous faites en 2024, vous avez dit, ça y est, nous avons Monsieur l'ancien Président. Si vous avez dit, à partir de demain, nous avons Monsieur l'ancien Président. Vous voyez, nous avons dit, nous avons nous waaye bu la neexee suba ñu woo la monsieur l'ancien président dag ñuy bàyyi ñu marche ndaxte réew mii muy réewu Sénégal même bu fa même même bu fekkoon da nga ko doon doon ci sa baay yow rek amoo ci wàll ndaxte da nga koy séddoo ak say mag ak say rek rawatina réew mii doon noo ko ci sa ndey doon noo ko ci sa baay ñun askanu Sénégal ñoo ko moom yow ngay suñu surga yow président Macky Sall